والقلم وما يسطرون salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi comité d'organisation grand prix C3S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 ma da baxa minu yatakallamu an idgham an-naqis day mel ni bunt bi li ci des mi ngi jàngal al idgham an-naqis hmm? loolu lay niru waxoon nañ ne wa arrima bi sawtihi adghamta wa kullu harfin ba'dahu shaddatta te waqafna huna kon euh, loolu mooy al idgham al xaalis idgham xaalis nag kenn ku nekk sa riwaay ba ngay jàng loola loola ca lañ lay attee atte bi benn la xaalun taxu illaa ma xamalat zuhuruhuma da ngeen bu dee izhaar laay wax nag bu dee idxam ci warsh nga wax illaa ma xamala zuhuruhuma ah bu dee xam ci xaalun nga wax yuazim man yacha ah kon kon riwaay bu mën a nekk àtte bi benn la da ngeen ko bu baax léegi nag kon ñu continuer lañ doon wax lépp na mooy idxam ak xaalis nga xamante ne bi eh, masque bi ci topp maanaam muy masque bu njëkk bi sifa bi ak maxaraj bi yëpp dañuy dem da ngeen kàlla barraana barraana nga xam ne desu sifa bi dem na ah maxaraj bi dem na sifab laam bi dem na maxaraju laam dem na la ah, dem na sifaam dem na lépp jël la jox na ko yi loolu mooy idxaam alkaamil al idxaam alxaalis kàlla barraana ah ama bu ñuy wax eh, eh, bu ñuy wax izhaar moom pare nañ idxaam boobu mooy idxaam al kaamil wala idxaam al xaalis idxaamu naaxis nag ci lay bëgg a wax man yàqal alabiyaat continuel wa shaddidanna ba Mm-hmm. aw xarf in in chita mm-hmm. kilal xarfayni mm-hmm. wal awalu wal aw wal awalu xtira wal awalu xtira wal awalu min axtaara kon loolu ma al idxaamu naaxis summa alladi adgamta ma ibqaa'i sawtin ka faayin inda harfi taa'i lan mooy àtte bi loo xamante idxaam nga ko may nekkut itxaam kaamil itxaam naaqis la itxaam nga ko mais boo xoolee eh, maanaam maxraj bi demut ah sawta bi moom daf fi des xool leen fii mu joxe ci misaal al xam kon lii lii mooy ta lii mooy bunt bi dañuy àggale rek continuer lañu war a jàng dégg ngeen al idxaam an naaxis dégg nga al idxaamu naaxis mithla ahad dégg nga wala nga ne daf ne nag bu fekkee dafa nekk idxaamu naaxis nga xamante ne bii maanaam idxaam nañ ko waaye nag léppam demut su boobaa nañ koy maase am na ñaari maasin misaal la joxe benn baat la indi waaye boo ko faratu moom ñoo bokk même même kii parce que wax na ta wax na ta su ma levi at xamta baat bi nga xam ne da nga ko idxaam waaye nag maa ibqaaya sawtin sawtu bi demut joxe misaal lu mel ne taa inda harfi bu bu bu bu ci harfu toppee lu mel ne ahabtu ahabtu nan lañ koy maase andi na ñaari maas ñaari xeetin mu ne sawir sukuna taai in aratta sawir sukuna taai in aratta maasal ma sukunu taai gi in aratta lu mu ci teg wa shaddidan baadawu xarfa ta après nga sàddal ma baat bii axattu da ngeen wala nga ne faratu da ngeen sawir sukoon a taay in aratta in aratta da nga ci mafhum mooy kon lu mën a ñàkk la in aratta la wax na maas sukoon a taay gi waaye wa shaddid dana baadahu xarfa ta boo paree nag nag ma sàddal taagi parce que da ne idxaam naaxis la moo tax taagi nga bàyyi ko fi wala sax aw arri inshita kii laa wala bu ci laal dara bu ci laal dara kii dañ la ko maas woon defaat ni ñaari àtte la waxoon rek moom ngay bàyyi aw arri inshita kii laa fayn mais koy maas moom lii ngay bàyyi ak lii aw arri in ah kee laa fay ni da léegi nag lii mu wax fii kon dañuy dégg ne it xaw naaxis mën nañ koo mas ñaari xeeti maasin maas taagi maas maas euh, sàdd ko walla nga bàyyi taagi bàyyi sàdd ki waaye nag nee na day wala awalux tiira bu njëkk bi moom moo gën dégg ngeen wala awalux tiira bu njëkk bi tànneef na ko minal wàcce ni ñaaram yi ma la wax bu leen ñu leen tànn da ngeen ko bu baax voilà dafa fahimtum voilà baat bi ci kaw dégg ngeen ah lay effectivement moo tax misaal la joxe lay ba sotta effectivement dégg waaye nag daa am yoo xamante ne bii moom ca it xam maanaam kaamil lañ koy dugal la ngeen day ne taxatta ah bari nañ torop moom yooyu moom mais yi nga xamante ne bi maanaam moom po ak ta dañ jege po ak ta gisoo leen niñ max rek po ta dañ jege looloo tax ñu di ko def it xamu naaxis da ngeen mais xam ngeen ne daal ak ta po ak ta ñoo gën a jegee maxraj fee dañ ko jàpp it xam maanaam kaamil it xam xaalis ah bu ngeen xoolee da ngeen di sàdd taaga benn yoon ah? la ngeen di taxata ilaan xayri ah loolu noonu ngeen koy maasale voilà ma taxatu ma li boo xoolee zaal ak ta eh, idxaam kaamil lañ ko lañ koy antibaar kon ah ah alam nax lukkum alxaaf wal kaaf ci la bokk ca lañ jàngoon démb idxaam kaamil lañ koy jàppee muy xaaf ak kaaf alam nax lukkum foofu la bokk moom itam boo demee ci ci e, saara maanaam bu tani si bi mu def muy atras fi e, e, maanaam dabtul xaraz andi na ko fi mais ñaari anam yi ñaari anam la ko maase alam alam naxlukum alam naxlukum li ngeen ko xamee rek alam nax lépp alam nax alam nax loq loqukum gisu leen niñ jegee wane xam ne ne idxaam ko moo gën a neex jàng ah dina ko nii ñaari anam yëpp nee nañ dagan na ci waaye al al muxtaar mooy idxaam hmm? idxaam xaalis alam nax loqukum nga xamante ne bii day jeex tàkk xaaf ak kaaf moom xam ngeen ni ah waajo nu mu ko waxee woon ah dañoo jege kii ci asfalu ah yaakaar na loolu la waxoon ca ca téere ba muy jàngalee ba muy jàngalee maxaarijul xuruuf ah voilà kon day mel ne buntu maanaam al idxaam al ishaar fii la yem kon <coughs> idxaam moo ay wax xaalis idxaam kaamil idxaam kaamil idxaam ah, xaalis moom genn wax la da bu baax waarima bi sawtihi adxamta wa shaddana ba noonu wa kullu harfin baadoo ah, shaddata lu ñuy wax idxaam maanaam ah, naaxis moo am ay wax nan lañ koy maase benn da ngay maas taagi maas taagi loolu nag ci taa ak taa rek ci la am aki mbokkam wala nga taariye ko bàyyi taagi te doo sàdda taagi dégg ngeen waaye nag nee nañ la ne alwajhul awwal wala wala wala uxtiira ah wacc xëy ni kon loolu la ñu ci baabu al idxaam wal izhaar da ngeen kon ñu fas yéene ñoo commencé buntu nag boo am solo muy maanaam muy maanaam Hamza da ngeen Hamza buntu la boo xamante ne bii bu dee xiraat moo ci gën a jafe bu dee bapt moo ci gën a jafe Hamza. moo gën a jafe ci dabt moo gën a jafe ci xiraat moo ci gën a bare ay ay ay awju xiraat noonu la ci mel même bu dee dabt itam noonu la ci mel kon euh, ñu xool luñ ci mën a jàng ñu jàng ko mais ngeen def ci kii bu baax dégg ngeen incha allah inta yumkin an nam saxana xalu voilà laa ilaha illa allah man yaqra al abyaat <coughs> la la la anta <coughs> mm-hmm. ah xool ko xoox bu baax hmm? loo mu xaq محققا ورد أو مسهلا ودبت ما Hamza ni ma leen ko waxee woon mooy bunt bi gën a jafe ci dabt moo ci ëpp ay wax ku ñuy wax abu abdullah xiisi da doon wax ne wa mahma tadabtul hamza nafsi taqsha'ir wa min duxuli fi ulumihi tafir sa bu ma ciy wax damay commencé am problème loolu lay wax day wane ne rek sa boo xoolee ibnu ibnu bëri dafa wax ne am sa moom dafa naqaree jàng parce que doo xam looy wax léeg nga ne wu léeg nga ne léeg-léeg nga ne u léeg nga ne u léeg nga ne yii moo dafa naqaree wax daal moo tax ñu wax ci loolu ñu ci wax léegi mu commencé mu ne alxawlu fil hamzi koy fa yi la ak nan lañ koy bindee muhaqqaqan warada aw aw aw musahala dafa nekk muhaqqaq wala dafa nekk maa musahal muhaqqaq fu ñu waxee mooy am sa dañ koy bind di ko jàng musahala mooy am sa goo xamante ne bi buñ ko duñ ko bind te itam duñ ko jàng-jàng bu leer loolu mooy tafsil bay na bay lay nekk lay na bu ne muhaqqaqan jooju muhaqqaqan jooju mu wax lu bare bare bari moo xam soo ko waxee mooy bépp am sa boo xam ne nii maa dafa commencé baat amul xilaaf da ngeen bu baax xam sa commencé baat moom foo ko fekk moo lay nekk amul xilaaf fenn fenn fenn la amul tab sóora bu gën a xonq bi am bi la bas comme li ma bindoon léegi alam naxlukum da ngeen sax da ah, dañ koy taxqiq mu ne ci biir baat bi saala xiraatu maanaam man yaqiran ah. soo saala saailun da ngeen euh, kon moo xam jooju mu wax loolu lépp lépp lépp loolu lépp mu wax dafa nekk ci biir kon foo ko fekk loolu lay bëgg a jàngal moo xam aw musahala saxala am sa boo xamante ni bi duñ ko jàng-jàng bu leer ay ida midna tabsura safwa waaye bu ñu amee nag ay couleur euh, dana ci wax daanaka naa ko bàyyi bañ ak si da ngeen jëmmi xam si moom a yitteel da mais couleur yi dana ci wax incha allah da ngeen voilà lu mel ne ay ida da ay ida midna mu zaxal la dégg nga haula in kuntum mu la ci mu zaxal la bi moo ko waral kon ci tënk rek mooy li koy yitteel mooy am sa bu ñuy jàng ak am sa bu ñu dul jàng lañ bëgg a jàngale dangeen ngeen bu baax alxawlu fi lhamzu kayfa juila muaqqaqan warada aw muzahala wala dafa nekk am sa bu ñuy tafsir boo xamee dañ koy jàng bay na bay na léegi nag mu njëkk a ñëw ci nan lañ koy maase mu ne fa dabtu ma xuqiqa bi naq naqtun wa ma suxil bil xamra bépp am sa bu ñuy jàng ab tomb lay nekk boo koy maas nan lay mel mu ne bi safra tomb bu mboq lay doon kon fii da def nii dégg ngeen alam naxluqkum hmm? def nii saala def nii badaa dégg ngeen dégg fadartuma maas bépp am sa boo xam ne xoq ya dañ koy jàng naqtun ab tomb lay nekk naa naka lu muy mel mu ne bis safra tomb bu mboq lay doon waaye nag wamaa soxi la bépp am sa bundu jàng ah bil xamala tomb bu xonq lay doon loolooy tax fii dangay ngay def ngay def ay ida midna mi ngi nii dégg nga waaw la dégg haawla in kuntum da ngeen da ngeen ci tax ximee li danañ si ñëw benn misaal rek pour ngeen xam am sa bu ñuy jàng ak bu jàng kon fu ngeen fekk xam sa bu ñu jàng ah nuqta xamra lay nekk nuqta xamra moom lay nekk da bu baax bépp am sa bu ñu dul jàng nuqta xamra tomb bu xonq lay doon bépp am sa bu ñuy jàng nuqta safra lay nekk tomb bu mboq lay nekk fa dabtu ma xuqiqa bi safraay naqpun dégg ngeen wa ma suxila bil xamraay voilà ñun waxuñ ay riwaaya actuellement day jàngale ay xaayida dana ñëw lu bare bare ci lii ñuy wax moo tax ma ne ma ne dama leen war ngir ngeen xàmmee tomb yi waaye danañ ñëw ci kanam ci lii lépp détail ngeen ngir ngeen xam ne rek ki nga xamante ne bii day jàng xaawalaa in kuntum bu dee ñun dañuy tasiil danañ ci ñëw da ngeen bu baax bu dee lu mel ne euh, lu mel ne euh, xaaloon nga xam ne maanaam moom day tasiil maanaam euh, bu njëkk bi xaawalaa yi lay wax danañ ci ñëw mais li ñuy teel rek mooy ngeen xàmmee place tomb laa laa jubla woon bépp bépp sa bu ñuy jàng tomb bu mboq lay nekk bépp hamza bu ñuy jàng tomb bu xonq lay nekk da ngeen bu baax voilà loolu loolu la jubloo wax ci wayu wayu wayu wayu wayu wi ñu toll nii léegi nag ngeen xam ne am na lu am solo lu muy wax man yàqaral bayt taali dañ dem ci jigéen ñi kii ci digg bi danay musharaka mais koñ bii nan nii rek anti naam ayo voilà voilà hada yakfi ida taxaraka hada huna qawlun kasir dégg ngeen mu ne nag wada alladi dakartu fi lmusaxali dégg ngeen bayna bayna lii ma la wax yaa ngi koy def ci lu ñuy tasiil bayna bayna lu mel ne lu mel ne maska lonk ñu di ko jàng am sa topp ci diggante waaw ah, ak maska lonk maskaloon yaa eh, kasra topp ci diggante waaw ak yaa mu ne lii laa ne le moom lañuy ñuy maase nii dañ ngeen loolu la ñuy loolu la ñuy maase nii loolu la ñuy maase nii mooy bay na bay na loolu dañuy jugal ci ngeen xam ne Hamza ji boppam Hamza ji boppam niñ koy niñ koy eh, day nekk masalan muharrak dégg ngeen wala nga ne hamza ghayru muharrak bépp am sa boo xamante ni bii maanaam dañ koy maas dégg ngeen bu baax kañ ak am sa boo xamante ne bii maanaam duñ ko maas bi dañ koy maas bu fekk dafa nekk muhaqqaq comme lu ma li ñuy wax dañ koy maas isa ubdila daal mooy sawtu ba muy joxe masque ba mu xeeful moom lañ koy jox su boobaa dañ koy maas lu mel ne muharrak euh, amara alla taabudu illa iyahu da ngeen amara alla taabudu illa iyahu kii da koy maas da ngeen wala sax mu nekk muharrak boo xam ne maanaam dañ koy daal maanaam tañ juboo ci lu mel ne wa yaa samaau waqli parce que daa am ay moroom yum yum nirool ah kii xoola lii amul wuute kaa mu du kii kaa mu du kii euh, wama non non bi tomb bu xonq la waaw wa yaa samaau fu ngeen fekk maanaam xam sa mu xaqax dañ koy jàng buñ koy daalee nga xam ne maanaam moom léegi sawtu ba muy dégg moom maanaam noonu lañ koy jàng nga xam ne waaw dañ naan lu xeet ak moom maskaloog lu xeet moom looloo tax ñu di ko soow ñu am li ci topp ñu di topp waaw waaye sama waqila yi amul wute lu mel ne nag yasha wila loolu dafa am xilaaf moo tax andiwuma ko am na ñu koy tasiil su boobaa kenn du ko maas mais ñun dañ koy ah dañ koy duñ ko tasiil dañ koy ibdaal looloo tax ñu di ko maas ñun dañuy jàng yasha wila am déet ah yasha wila lay moo tax ñu di ko mais bu fekkoon dañ koy tasiil dañ koy eh, eh, doo ko loolu doo ko maas yaa ngi ni bii daal talaxfun la wax foofu waaw loolu mi misaal la kooku amul wute léegi nag aussi itam Hamza dana ñëw kenn du ko maas dégg ngeen Hamza day ñëw kenn du ko maas kañ ida kaana musahalan bayna bayna comme lu mel lu mel ni li ñuy jàng bépp Hamza xoola ki sax jërtoon indi ndax danañ ci wax wax ju bari lool ayifkan bii ah ayifkan bii jëru fa woon indi comme misaal kon bépp xam sa boo xam ne te dañ koo tasil kenn kenn du ko mas ay daa bind naa ngay wax da ngay jàng diggante kasra ak yaa ay a bind naa parce que bu doon noonu kasra dangay ngay wax a i i gisoo fi muy génne su doon yaa danga naan a yii waxoo ci lenn bay na bay na nga ko def ay ida na seetlu ngeen ko bu baax seetlu ngeen ko i gisoo fu muy jógee yii du ci benn tasil bay na bay na mooy ay ay ida kon moo loo tax kenn du commence ayif kan néewu ayif kan néewu ayif kan waxoo ci dara ayif kan nga wax bay na bay na nga def loolu tax kenn du commence wala mu nekk maanaam wala mu nekk euh, mubdal bi arfin xoola in takunu ta'lamuuna in takunu ta'lamuuna ñun dañuy tasil di wax eh, ibdal bi arfin lañ wax in takunu taalamuuna kenn du ko maas hamza bi ak hamza la mais kenn du ko dañ ko ibdal lii li waroon a nekk fii lañ soppi def ko ak xëcc taa indekunu taalama looloo tax kenn du ko mas al fahimtum mu ne nag wadal ladi dakartu lii ma la wax lii ma la wax mi nga am fil musaxali ah fil musaxali suxila bayna bayna ci luñ tasil bayna bayna kañ aw bil badal li sax ida taxaraka wala luñ tasil maanaam bil badal ida taxaraka suñ ko dee maas suñ ko dee maslaa la wax lu mel ni lii xoolal lii gisoo ko nii badal la xam nga dafa mas dañ koo tasil mais bil badal kii dañ koo soppi léegi waaw su boobaa tomb bi day xonq la la wax dégg ngeen mu ne tomb bi su boobaa day xonq buñ ko tasil bay na bay na itam nee na day xonq ay ifkan ay ida midna loolu leer na voilà fa fi muajjala wabaa bihi min fawqi in ubdila lii da koo wax mais eh, mafhum la dégg nañ ko ci li mu wax même fa fi muajjala loolu mooy am ci muajjala wabaa bii ak i mbokkam masalan kitaabu muajjalan am na ci ali imran ak i mbokkam muazzilun ah am na ci yusuf ah wal ah. wala yu waxira ay mbokkam la ñoo mbokk ak i mbokkam waaw yooyu ci la bokk war ma ne eh, in ubdila gisoo ko noonu suñ ko ibdaalee muy soppi ko maanaam xeetu masque nga ko féete ginnaaw baabu mu waa jalan xoola adluhu kaana hakada loolu yaakaar naa ne dafa mel ni fan dégg naa ngeen di ko jàng Hamza bi boo xoolee biñ ñëwee fii asluhu kaana mu ajjalan lii la doonoon ñu ne daayiman yajibu an an an an yuktab hmm, hamza waawan ida kaana ba'dahu damma loolu mooy régal bi léegi nag ñu ne ah loolu la wax kat kon nañ def nii parce que lu ko waral maskalonk bii moo tax moo tax ñuy moo tax ñu bind ko waaw léegi nag nañ koy jànge bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee Hafsa daf koy daf koy taxqiq mu ah lay wax mais ñun ah tasiluñ ko tasiluñ ko dañ koy ibdaal waawan looloo tax ñuy jàng mu wajjalan di jàng mu muwaddinun bayna dalik di jàng wax yuwaxiru mais asluhu kaana hamsan da ngeen ko bu baax mu ne wo maanaam mu wàjja ak buntam ñëpp inaugurer la su fekkee da nga ko remplacer def ko def ko jàng waawan même at bi la yore kii nuqta xamra lay nekk ba léegi miy wax ci tomb bi ba léegi tomb yi nga xam ne day xonq moom la lay jàngal ah ah li yàlla li yàlla même àtte boobu àtte boobu ci la bokk wa baabuhu min fa inub di la parce que li yàlla am na ñaari yoon li allaa ya'lam ahlul kitaabi am na ci hadid yi li allaa yakuuna linnaasi am na ci nisaa yi am déet am na ci ki may ngi dalay wax ah? ci booy bëgg a jeexal kii bi rek ci eh, isib bi li allaa yakuuna linnaasi alaa wajhi ba'da rusul ci nisaa la de ni saa yore de yaakaar yaakaar naa ko de xam nag yéen da ngeen mokkal man dama ko teel moo tax dégg ngeen ate bi même même même même kii la parce que in ub de la moo mooy sens bi in ub la mais bu dee af li Allah lay wax mais dañ koy daal ñun yaan li yàlla la ñuy wax ma li yàlla yakunu li nas voilà jayid wa hakada bi alifin min min min li ahab alif bi waaw waaw daiman uh, ok يجب أن يكتب همزة واوا إذا كان ما قبله مرفوعا loolu gis naa ko jàng ngeen ko ci seen téere bii barki démb dégg naa ngeen ci wax ah ah dégg naa lu ñu rek loolu loolu de am xam na waxtaan woo xëy na ah, <laughs> ah, ah ok waaw mën naa taxaw dégg mu ne nag wa hakada bi alifin min la ahab liman ilal yaay xiraatun dahab lii règle bi ma la wax ba ñu ngi wax ci day day day am nuqta safra in ubdi la lay wax ne in ubdi la in ubdi la ida taharaka in ubdi la day maas ba pare ñu ibdaal ko waa lu mel ni mooy am bi alif ci alif gi nekk min li ahaba laki li ahaba laki ah te ma leen laaj man fu bi nekk sax foo foo am sa ngir nekk bala ma ko bind li aaba lakki dégg ngeen mu ni lii mooy am ah léegi boo ko nekk ma def laam bi ci des laam alif waaw da def ko laam alif da def ko laam alif <laughs> xam nga lii daa leer waaw li aaba laki dégg ngeen léegi mu ne waxaa ka lii ma la wax moo am bi alif ci alif gi nekk min min li aab loolu dañu dugal ci tuuti lu ñu leen leeral fii parce que li nga xamante ne bi yow yaa ngi koy yaa ngi koy jàng benn day nekk loo xamante ne bi li nga jàng dafa dëppoo ak suura bi da ngeen xiraa ah suura wala nga ne xiraa laa tuwaafiqi suura benn yow li nga xamante ne bii moom nga jàng li ngay dégg ak suura baat bi ñoo bokk wala li ngay dégg ak suura baat bi bokkut loolu fii la fii la baat bi baat bi bokk moo tax ma bindal leen leen al misaal fi hada masalan xamu seetlu ngeen ko mu ajjalan xam ne baax naa def laamuk gee yaa ba lëkke bu ngeen seetloo nee na wa hakada min alifin waa hakada bi alif bi alifin min laa bi alif wa hakada bi alifin min li ahab lii ma la wax mooy am ci laam gi nekk ci li ahaba laki waaye kan liman ah ilal yaayi xiraatun daab ci ki nga xamante ni bii daf koy daf koy ibdaal yaa comme riwaayatu warsh su boobaa itam régal bi moo fii da nga fiy def benn tomb xonq waaye am na am na yeneen bindi nag yu bari yu ci am li ma leen wax mooy benn booy daalee léegi daal benn la ngay jàng ak sóoru bi ñu bokk gisu xam ne mu wàcc dara ngay wax mais waaw gi xeetoo na ak kii bi kii bi nii gisaloon ko nii suura bi ak sawtu bi dañoo xeetoo mais xoola fii li aabala kii yaa nga jàng lan moo fi nekk ali hamza ndax xeetoo nañ su boobaa lu mu ci mën di doon ibdaal su xasee am rek da nga fay def benn tomb xonq da ngeen daal boo xasee am da nga fee tomb xonq waaw ibdaal yaa la wala ibdaal waawan la dégg ngeen <laughs> te itam day nekk maanaam muharaka dañ koy mas eh? léegi nag euh, loolu ma doon wax ci ci baat boobu dañ cee daal yeneen baat la mu waxoon tasiir bay na bay na waaw bu dee kasra comme liya waaw saa saa yu ibdaal rek moom day leer dañ koy mas lépp lu ñu ibdaal ibdaal ibdaal mooy nga def ko maanaam maanaam uh, arab wu xeetoog maska ba foo ko fekkee da nga koy tomb mas ko kon maanaam bu uh, nga war a wax waaw lay doon waaw uh, yaa lay nekk waaw mooy tax nga wax mu wàjjalan parce que dàmm la di wax voilà wa ba xeetool li ahaba li kasra yàlla xeetool mooy tax mooy tax li yahaba laki ah li ah. Mhm. ah danaa danaa ci ñëw waaw ci niñ koy bindee danaa ci ñëw moom laa bëgg a wax nii danaa ci ñëw léegi waaw hmm? hmm? ah. soodaa in kuntum loolu koy jàng nga ko pare euh, euh, shohada shohada ay kooku dañ koy tas it ab tomb rek nga fay def kenn xool leen lii gis ngeen da leen noppal trop dañ daan wax xaw ma lan kenn du ko laal xeet yooyu ah tomb boo koy maas foo ko fekk lim la wax du dañ regle bi ci lay ñëwaat lii gàtt na waaye da lay noppal ci nga xàmmee xam sa yëpp bépp am sa bu ñu ib daal dañ koy maas buñ tasiir kenn benn tomb la tomb la kenn du ko maas soodaayin kuntum daal soodaayin kuntum ngay wax parce que waxu waxu i waxu yi benn tomb rek moo fay nekk boo ci xool boo ci xool ci yëpp rek noonu lay mel. danañ ci ñëw danañ ci ñëw kenn du ko laal voilà kenn du ko laal. Hmm? ci fan. déedéet soo daayin kuntum. ci xiraa xiraatu warsh tomb rek lay nekk. soo ko fekk mën nga ko corriger ma yaakaar ne moom ma jaaw xam rek lay nekk ah loolu moom boo ngeen xam ne eh, njuumte la da ngeen fu ngeen ko fekk moom xëy na loolu njuumte lay nekk da ngeen soo daa in kuntum rek la war a nekk léegi nag li ñu doon wax fii li ahaba am nañuy ko yoo xam ne sax jëru fee indi dako ñaari doon yi may bëgg a wax ah yoo xam ne fii moom daanaka jërta ñëw wax nañ indi li ñaar yi nga xam ne daal siiw na walla bas après après dañ leen jàngi dañ leen ci téere yi ngeen lii ko dégg nga léegi règle bu mag bi mooy lii dégg ngeen am nañu des fii nag yaa li haba dégg ngeen def fii léeg-léeg am nañu koy def nii rek walla sax nga def ko nii def fi kii bu yaagu sew tomb fi ay tomb da ngeen ñetti forme yi danañ ko bindee li ah, li li yaabala ki kii da ngeen ngir wane ne maanaam lii maanaam mubdal yaa an la parce que tomb bi boo ñëwee da nga xam ne kii dañ ko ibdaal loola lay jàngal lii lo yaa gi loola lay jàngal kii mu da koo far tomb defal la ko ay yaagu yaagu sew loolu loolu loolu ñu wax foofu nag bu ngeen seetloo Cheikhaani ah, ah, kanakan la daani ak abu daawud ñoom lii lañ lii lañ wax dangeen boo xoolee kaamilu euh, sëñ Bousso bii lii moo ca nekk da dangeen bu baax loolu moo ca nekk hmm. mooy lii wa mooy lii ah ah ban kenn kii ñaar tomb yaa ngi ne lan lan mooy yërut du lii ah ah, ah mais ñooyam rek moom bi ñooyam forme bindin bi ñoo bokkul rek comme nii waaw loolu la moog ñoo yam rek maa ni ñu defee yaagi moo bokkul ñenn ñi dañ koy def saaru train nii ah ñenn ñi def ko nii dégg boo xoolee ina Abu Daawud bi def lu mel ak Amza bu ndaw waaw ah, loolu loolu danañ danañ ci ñëw léegi danañ ci ñëw ah ah voilà boo xoolee euh, euh, kaamil sëñ Fallou bi moom kii bu mel ni la def kaa bu mel kii bu mel ni la def boo xoolee euh, kiiwu Algérie bu yàgg ba Jazaïr bu bu yàgg ba kii bu mel ni la def waaye téere yi mujj yëpp bii moo ci nekk mais yëpp nag imaamu daani ak abou daaw saxal nañ ko da ngeen da ngeen ko bu wax waaye yaakaar naa Sénégal actuellement fi mu ne nii bii am déet ñaari bu fi gën a bari ah bii nii bii nii kon baax na waaw hmm. voilà loolu leer na hmm? ah bii ngay bind yépp wér kan ñun dañ dañ ko moom ba ci wéral benn dañ ko moom ba ci wéral benn ñun kay kay moomuñ ci benn dama ne la xoola lii loo ci bind kii corrigé du la wax dara dara du la ko wax kii corrigé moom ko ab xam-xam bu fi nekk la xam-xam boo xam ne amul tarji ok bu fekkoonte ne xam nga léeg ñu jàng pare ne la xafee dañ la wal wal walux tiira mi nel waccee ni su boobaa kay loola nga war a def soo defee leneen kii corrigé mën na laa condamné ne la parce que li nga def ko nekkul muxtaar bi mais loo xamante ne bii tarji amu ci te ñu ne ñaar yëpp dagan na loo ca def na ah? waaye nga fexe nag masalan masalan nga fexe nag loolu su tokkaraaroon ci li ngay bind yëpp nañ niroo loola su baamu woon la ngay bind yëpp nañ niroo da ngeen loo ci mën di jël bu takkaraare na nga respecte na ngay doxe ba kii xam yow mii ci lan ngay dox waaye ëllëg fee ëllëg fee loolu moom kii ko rési boo ko neexee mu luy xamu ko ah ba nga xam lu mu doon wax ma dégg wala wala ñu ba pare dégg ah ma xool ah nga xam ne kii li mu wax bàyyi bind ko fii ni mu wax da ngay def kii yaa carrément ya yaa la def nii dégg ngeen ah waaw ah, tomb yi fii lañ nekk lii kat moog lii ñooyam rek daa kii rek daa fis ba point waaye moog lii ñooyam rek waaye nag maanaam mu laam mu ne mu galgal laam gi moom moo gën ndax danañ jàng lu mel noonu laam alif mu galgal gi ah, bu ci yewee ci xëcc ka galgal gi lay nekk moo la xamal ne ko lii moo gën waaw mi man nangoo galgal sax yow itam ah dangoo galgal sax mais lii ma jarut taxaw de dégg nga ah non man du ma la wax loo looy kii dafay man jàngal la bàyyi la laa lay def du la wax looy def non non lii am problème kenn du la ci wax dara kenn du wax dara parce que xoola dañ ne la xoola dañu ne la dañu ne la kii xam nga lu ko yitteel dañ ne la wal hukumu waaw ah, li mu am na solo parce que li nga xam mooy mais ñaata ñooy jàng te duñ dem ay concours yow xam-xam moo tax ngay jàng dañ ne la jàng eh, eh, wa hakaza bi alifin min li ahab voilà gisoo ko nii. Ah, kii noonu la def. bii la waaw ah. pardon comme nii comme bii la rek dañ koo seq dañ koo seq comme bii la rek. lii daal jërëjëf taxaw de nga jërëjëf taxaw de. xoola bii daal moom ba bii daal laa ne leen. Cheikh Khani ñoom dañ dañ koo bind ba pare. da ngeen wax na waaw xoola xoola bu leen tarde fii da ngeen buñ fi tardé ba heure bi jeexee nan sarif da ngeen xam nga lu ñuy lu ñuy teel da ngeen di jàng maanaam fi nga xam ne day am tomb ñu ne li ahaba day am tomb mais dañ koy mas parce que dañ koy ibdaal yaa an loolu moo ko yitteel ibdaal yaa an googu ñuy wax nag daa am yoo xam ne dañ koy bind nga di ko séen loolu rek la loolu dong la de mais xoola leen laa yekkoona seetlu leen ko ñoo bokk même régal mais bii ne daa ñuy bind yaa ngi nga di ko séen loolu dong la du leneen yaa gi ngay jàng daa ñu di ko bind comme ni sëñ bii bind nii nga di ko séen wala ñu def ko ni wan leen a yàlla wala ñu def ko nii tomb nga di ko séen loolu rek la du leneen léegi nag Cheikh Khani ñoom ñaan yëpp wax mais Abu Daawud ginnaaw bi itam maanaam moom dafa tànn bii man ne leen kaamil sëñ bi soo ca demee lii moo ca nekk kaamil sëñ Fall soo ca demee lii moo ca nekk da mais ku ci nekk yàlla sawab da ngeen démb ñu ngi déggu naa ngeen di wax euh, lu mel ne euh, laay yi ba léegi ci la bokk muy muy xam yi ñuy tasxiil doo wax doo wax wala i doo wax wala yi lu mel ne sawaay ma nga xam ne da koy da koy idxaam wala yi is na nga day sàdd kële loolu moom euh, taxu ñoo jóg tey nii mais wallaay même même règle bii la Hamza la xam Hamza muzahar lay nekk Hamza muzahar lay nekk wallaay is doo doone wallaay i doone wallaay yi looloo tax ñu di commencé nii ngeen di maase dégg naa dem ngeen di ci wax man xamoon naa ne da ngeen ko jàng tey moo tax euh, ci Hamza la bokk nii maase sa ngeen di jàng tey moom mi ngi nii nuqta bi ma daara fii wala nuqta képp ñaari maska yi ñaari yii la am yéen ban ngeen ciy def wala yegg na nu ngeen koy maase bu njëkk bi loolu loolu tam day wane ne dañ koo tafsir day wane am sa gi jànguñ ko wala i ju leer moom la gaa yi jàng mais ñun duñ ko jàng moo tax ñu tomb di la wane lii dañ koy tafsir bay na bay na bay na euh, bay na kasra wal yaa wala yeis na da ngeen duñ ko idxaam fële itam gaa dañ koy sàdd wallaay yeis na jàngul ñun dañuy jàng wallaay yeis na duñ jàng i duñ jàng yi loolu moo waral tomb bii ngeen di gis da ko bu baax bu ñëwee aussi itam ci baatub aw nabiwukum aussi ah, ci la bokk hamza yi tasil ci la bokk léegi nag niñ koy maase am na bii wàccu nuqta xamra fii lew na biikum nga xam ne doo wax doo wax u doo wax awu xulew na biikum u wu waxoo ci lenn xulew na biikum da nga koo tasil tomb bii loolu moo ko waral wala non naa ko def kii parce que bala ngeen bala ngeen koo jaawale bu soon bala ngeen koo jaawale kii bi maa juum walla wala sax nga ñëw def ko nii wala nabiukum wala nga ñëw def ko nii ñaari anam yi moo am ci ni ñuy bindee xoloona bi hukum léegi boo ñëwee ku lu mel ne imaamu daani moom daf ne nii lañ war a bindee xoloona bi hukum boo ñëwee abu daawud moom itam daf ne nii lañ war a bindee xoloon na biikum kon day mel na sëriñ bi ak donga bi foofu bokkuñ fi bokkuñ fi ñu jàpp dégg ngeen mais amaana ba wacc bu mu waxaat fii daal na itam beneen nii lañ ko war a bindee am na ñaari kalaam mais boo xoolee boo demee ca euh, tashhir bu alxaadi moom daf ni moom xoloon na biikum dëgg-dëgg nii lañ ko war a bindee toujours toujours nii lañ ko war a bindee moom loolu la tarjixal Hmm? bépp am sa bu ñuy jàng tomb bu mboq nga koy def. loolu la ñu waxoon daa mel ni. bu mboq lay nekk booy nekk bu xonk léegi nag kon dangeen gis ne boo ñëwee fii ci senegal lu mel ne kaamilu uh, sëñ buso bi soo ca demee lii moo fa nekk lii lay bind kii. kaamil Sëñ Fallu bi soo ci demee lii moo fa nekk kaamil Sëñ Fallu bi soo ci demee lii moo ci nekk mooy imaamu daami la ah ah bi mu ëpp waaw bi mu ëpp kay bi mu ëpp ah bii nii waaw dañ ko daa voilà dañ ko tàngee fu ñu ci dara moo am fële ci ayif kan danaa ci ñëw léegi boo ñëwee ayif kan ma imaamu daani loolu la ci wax imaamu daani loolu la ci wax defu ci dara daf ko bàyyi noonu dégg ngeen defu ci dara maanaam ci def ko taaree bàyyi ko noonu dégg boo boo xoolee eh, même kii Abu Daawud dafa jël lii dégg ngeen def ci benn tomb ayif kan moo ëpp fii voilà dégg ANSI. mooy tomb bi tomb bi. ndax bu la neexee nga def ko ah, waaw effectivement jamono bi Hamza lañ koy def. Hamza boobu danañ ci ñëw xam nga boobu ba léegi dañuy wax maanaam dañ ne dañ ne la boo koy boo koy ne na nekk nuqta safra mais am na beneen forme Hamza loolu waxagu ko am na ci téere bi dégg ngeen. Ah, am na ci téere bi mooy li ngay laaj nii danañ ci ñëw dégg ngeen. kon ñu xam ne Hamza ji boppam maanaam moom lu ko waxee woon ca tàmbali Hamza ji boppam moo bari ay wax moo bari ay wax dégg ngeen Hamza ji boppam moo bari ay wax inaatan wa shilo li danañ ci ñëw danañ ci ñëw danañ ci ñëw man yaqra man yaqra eh ay ay jàngal yow yow mii waaw yow waaw mhm. Mhm. aha continue Mhm. li man tasahala la xanaa am xat sahala aywa aha nga yem continuel u ulahuma mm. hamzatayn bul jàng noonu gi hamzatayn mm. Mhm. Mm. aw maksuratayn voilà shay'un axar loolu leneen la loolu leneen la bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo li ñuy wax li ñuy wax tomb bi dafa ne ci benn baat seetlu ngeen ko coow lii coow lépp tomb bi dafa ne ci benn baat ah lii muy bëgg wax nag mooy maanaam tomb bi hamza bi ak ak ak la ca topp bokkuñ baat bu ñu nekk loolu lay wax nii day mel ne kon nañ koy nañ koy kii mën naa soppikuwaat wala xukumu fii uxrahuma kal xukumi mi baadi kasi waradat aw dammi mu ne nag ñaari hamza yu dajaloo ci benn baat yu dajaloo ci ci ñaari baat nga xam ne dañuy daal saaniya muharrak nga xam ne day maas dañ koy daal bu ñu ibdaal rek xam ngeen ne kon day gërëm ci dañu dañ day maas da ngeen ñaari hamza yu daje tañu ibdaal saaniya su boobaa mu ne la ma la waxoon fee loolu laa lay waxaat ba ñuy ibdaal day nekk nuqta nuqta xamra da ngeen walakum atte ba fii raaxuma ci am sa ba ba ca des ah kalakum moo ko atte ba ñooy bokk waradat maanaam ci mbirum loolu xaal lay nekk ci hamza ga nga xam ne moo ñëw mi baari kasin ginnaaw baat boo xamante ne bi kasra moo ko fete ginnaaw aw baat boo xam ne maska lonk moo ko fete ginnaaw la ma la ci waxoon moom laa la ciy waxaat dañ ne la bu dee baat boo xam ne kasra moo ko fete ginnaaw dañ koy ibdaal dañ koy ibdaal lan yaa lu mel ne li yàlla du li lañ waxoon muadzinun dañ koy ibdaal muadzinun bayna dalik dangeen ngeen mu ne nag bu dee ñaari baat yu tegaloo tey ibdaal saaniya même même noonu la da lu mel ne Eh, moo kal ngeen li andi ma ci ma dégg. Hmm? jaa amruna jaa taxawal min baadi kasrin la la wax aw dammi eh, eh? voilà haula dañu ma indil masque waaye bon maskalon ko laa man yasa wila sirati boobu na dafa am xilaaf dégg waaye bu ñu ko indee fii baax na parce que ñun ah waaw voilà waaye sama waqale yi boobu amul xilaaf mais waaye même même baax na parce que ñun euh, bu dee riwaaya warsh dañ koy daal waawan lu mel ne euh, su fa am na ci ci commencement alif laam miim rek de ah? wala shufa wala wala noo ko waxaat ma dëgg ay waay jile yéen yéen lu leen wax dañ leen leen ne al waslu mam al al al dabt mamniyun amul soxla ci loolu moom xool fu ñuy taxaw li war a am rek lay xool bàyyil baat boobu dégg nga dabt li war am lay xool mais xool li muy moom jàpp ne kenn taxaw na noonu lay xooli baat bi moom jàpp ne kenn xool wàqf du du xam-xamam yoonam nekku ci moom lu koy toppatoo baat bi ci kanamam nu mu war a mel hmm. dégg nga noo ko noo comme comme amoon na fi ñu indi beneen rek <laughs> ah alal naa wasaf naa daay xam naa ni daal voilà ñooñu yëpp bokk waa ah. sabnaahum waaw dama lii moo ñu <laughs> dégg ngeen li ñuy jàng nag moo ñu fi teel hawla yaxi non non su boobaa dañuy bokk su boobaa dañuy bokk léegi la wax mu ne la walakumu àtte bi fii uxraahuma bi mujj ci ñoom ñaar ah ko moo ko àtte ba ñooy bokk ba nga xam ne warabat moo ñëwoon min baadi kafin ginnaaw maska suuf lu mel ne li yàlla yaalama wala li yàlla yakuna aw dammin wala mu ñëw ginnaaw maska loo ko muadinum hmm? voilà muadinum kon kon ni fi nga doon wax li yàlla da ngay wax xaaw laa ya da ngeen commence wala du ngeen commence ah ah eh xawlaay dañ koy dañ koy maas wala duñ ko maas non maas ka moom loolu danañ ci ñëw ah ma waaye ma xool xawla ku dugal ci lii waaye yéen itam kat ah loolu moo tax kay ah lu tee nga wax ah waaye sëñ bi di alxuraan la lii kay fi mu ne nii ma ko sax lu ma ko de jërëjëf mi waa yëqi ah, ah? law bi ah, lam laa def kon di ngay wax xaw ma looy wax yow fi nii sax allah na wasoona bi sunu bihim voilà kon règle bi benn la wala ku ma àtte bi fii ixraahumaa ci xam sa ñaareel bi kalaku bi mook àtte ba ñooy bokk ba nga xam ne war a moo ñëwoon mi baari kafin ginnaaw kasra bu ñu ibdaal yaa aw dammin wala maskaloog bu ñu ibdaal waaw dégg ngeen li yàlla yakuna muwazinun mi waaye xii ak alaw alaw nashaau wa wasabnaahum bi dunubihim ñaari baat yi bokkul voilà li ñu wax lépp ci benn baat la nekkoon lii ne mooy bu fekkente ne kii daa nekk fii kii nekk fii ñu ah mais mais dañoo mais dañoo fësaloo même même attel la jubloo wax ne mooy bokk saa yu ñu ko ibdaalee daal dañ koy tomb aussi dañ koy maas da ngeen am na leneen lu muy wax waaye ntasha sawarta hamzan awwala waawan wa yaa xamra lu ci toog liman xad saxala ulahuma lada tifaaril hamzatayn in jaata bi dammi aw maksuratayn loolu nag beneen règle la règle boobu xaasun li xaaluun da ngeen règle boobu ah ban ci ah, waaw waaw waaw maanaam yashaaw wi laa laa ne moo am wax ndax dañ koy ibda wala wala dañ koy tasil ñi nga xam ne dañ koy tasil kenn du ko maas yashaaw wi laa da koy tomb rek bàyyi noonu mais ñun ñi koy ñun ñi koy daal dañ koy tomb maas ko da ngeen waaw loolu mooy wax ci waaw effectivement loolu moo ci wax waaw hmm. Hmm. Hmm. kii bari na lu bare bari lu ñuy détaillé mais ni mu ko tënkee boo ko xamee da ngay xàmmee Hamza yëpp te way wax dëgg yàlla bariwut bu mën a jàngale léegi nag mu ne li muy wax dafa nekk maanaam ñaari arab ñaari ñaari ñaari masque yi dañoo ñëw nekk ñaari masque lonk wala ñu nekk ñaari masque suuf da ngeen ñu ni su boobaa nañ koy maase mën na soppeeku ci ki nga xamante ne bi day maanaan tafsir bu njëkk bi da ngeen wal leen xamoo ñun dañ doon dañ ah, dañuy tassil bu ñaareel bi yéen a ngi koy seetlu ñun dañuy jàng mi wea i yaqiihi seetlu ngeen ko allahu nasha wasabnahum mu ne nag ki nga xamante ne bi day tassil bu njëkk bi su boobaa su boobaa waaye nta sa su la neexee sa warta hamza na nga xam sa awalan lan ngay def hamza waawan la war nekk sa soppi ko waaw fii da ngay def awliyaawu waaw bu ndaw wa yaa an la nekkoon yaa fa bi bi bi ne marque wa yaa an nga def ko ya xawlaay xawlaay ba ñu ngi wax ci ci ci ci tasil koo xam ne bu njëkk ba lay tasil xam nga ñun dañuy tasil bu ñaareel bi loolu laa ne xaalun moom moo koy def day jàng awliyaawu awliyaawu laayika awliyaawu ulaayika moom day tafsir bu njëkk bii te ñun dañu doon tafsir bu ñaareel bi bu dooroon fi fi mu ne nii ñun bu dooroon xiraatu warsh duñ ko jànge noonu danañ ci ñëw mais fi muy waxee mooy ki nga xam ne day tafsir ñaari ñaari hamza yu tegaloo muy tafsir maana bu njëkk bi su boobaa maanaam masque ba euh, la moo la nu nekk may nañ ko mu soppi ko arab bu xeetoog loolee waaw masque loog waaw la xeetool awliyaawu ulaayika lay wax hawlaayi in kuntum lay wax da ngeen voilà waaye nag su la neexee sawarta hamza na nga def hamza awalan looy def hamza na la nekk war a nekk hamza soppi ko waawan ku koy def li man ki nga xamante ne bi xat saxal dafa tasil ulahuma am sa bu njëkk ba waaye kan lay am ladalti faaxil hamzatayn bu am say bokkee même masque laa wax nag ca la mën a nag parce que boo ko bokk day duggaat ca lañ jàngoon injaata bu ñëwee bi dammi nekk masque lonk awliyaa u u awliyaa u u aw mag sorté wala ñu maasan hawla i i boobaa sañ nga bind bu njëkk ba waaw bind bu ñaareel bi dangeen da ngeen ko waaye n tasha sawarta hamzan awwala waawoon waya xamra liman tasahala ulahuma ladati faaxil hamzatayn ah ah bi dammi aw maksawratayni waadi léegi nag lan lañuy ñuy taw ji foofu seyxaan ñoo jàngale ñaari anam yëpp ñoo jàngale lii njàngoon fii dégg ngeen hmm? def ko def ko na ko xamee woon dangeen comme nii lii moo la ko jàngaloon lii am na ko waroon laaj danañ ci ñëw dégg lii moo ñu ko jàngaloon dangeen dangeen ko bu baax lañ jàng mooy lu ñuy tasil dafa war a nekk nuqta nuqta xamra loolu loolu lañ jàng mu ne wàccu saani bi mu ne ki nga xam ne day tasil bu njëkk bi may nañ ko mu soppi ko waaw bu dee bu dee maskalonk wala mu soppi ko yaa bu dee bu dee kasra ñaari anam yëpp cheikhaani wax nañ ko waaye nag al wajhul awal huwa al muxtaar da ngeen wajhul awal moom moom moom la imaam eh, Abu Daawud tànn te yaakaar naa ne ñun ah huwa al maamulu bi yaakaar naa ne yéen ñu ngi dimanche si awliya awliya ulaayka voilà voilà parce que dañoo bokk loolu danañ ko jàng waaye fardan ci ci ci ci ko mën a waxee pour ngeen xam ko voilà lu mel ne eh, lu mel ne parce que ñun saa yu bokkee rek duñ daal benn bi riwaa wash voilà dañ koy tomb waaw mais may boo xoolee voilà dañ koy tomb boobu baax na waaye sama wàqli ay boobu baax na dañ koy tomb voilà loolu dégg nga hmm? loolu loolu dañ koy tasil dañ ah, bu dee foofu riwaaya warsh ah da koy soppi xëcc ka lu mel ne ara a ara ayta da koy xëcc dégg ngeen bu fekkee dañu ne ci tàmbali bi da koy xëcc a andartahum a andartahum loolu hmm? non boobu kenn du ko laal danañ ci ñëw loolu kenn du ko laal ibdaal la da kooku ibdaal la kon wayen tasa shawarta hamzan awala waawan waya xamra liman xad zahala ulahuma kañ lazati faaxil hamzatayni in jaata dammi aw maksuratayni léegi nag mu wax leneen mu wax leneen <coughs> am na lu ñuy wooyee taarif la daanaka moom mal muskil Hamza moom ko ak seet xam ne mooy mooy Hamza Amsa moom ku ñoo xam ne mooy Amsa parce que problème mooy dafa amutoon amutoon ginnaaw bi la ko gaa yi andi da mu wax ne ma njàqra mais aywa min ghayri suratin fada fi satri mu ne waa wa kullama wajadtahu min nabri min gayri suratin noo koy def mu ne fadan fi satri an nabru wal hamsu ñoo bokk ñoo bokk ay maam ñoo bokk lépp dégg ngeen al hamsu bokk lépp dégg ngeen ko bu baax loolu laa lay wax li ñuy woy an nabru ak hamza ñoom ñoo bokk lépp nabru buñ ko waxee moom mooy hamza waajo dafa waxoon ne al hamsu huma lughataani li waahidin ma xaw ma lan xaw ma lan li mooy mooy la ko li muy bi moom li moo lay alhamdu wa nabru huma lughataani li dañ ne dañ ne ñaari tur yu bokk yu bokk jenn jëmm la buñ ne laa nabru nee na nee moom mooy xam sa ngeen am ñu ne bu buñ ne sa mooy buñ ko jàngee buñ ko testé loolu la ñu woowee an nabru lim ju wax mooy. foo fekk hamza boo xam ne amul suura na nga ko teg ala satra xaay dafay dégg naa ngeen di ko jàng wa maa xad wala iskaana ci joo joo jawhar mën a sambi xam ngeen ne hamza bu ko maaska ni féetee ginnaaw te du xëcc ka da day nekk ala satra loolu la leen jàngal ah loolu la leen jàngal xoola fii xaay daf bi koy xoola da jàng xoola gisoo lii. yasaluuna doo ko nii yasaluuna da ngeen ala satr lay nekk parce que amul suura da ngeen règle bi mooy bu bu sukkoonee bu sukkoonee rek te du te xëcc ko rek du am suura loolu il faut loo am solo la ngeen jàpp ko bu baax gisoo ko nii. suura mooy bëñ bi. suura mooy xam xam xoola buñ nee am sa lii tax ñu am hamza foo ko fekk day day day tege ci dara la muy teg la ñuy woowee suura benn mu nekk alif wala mu nekk waaw wala mu nekk yaa fu ngeen déggee suura rek da ngeen koy jàpp loolu lu am solo bu ngeen suura bi rek maanaam moo mooy li hamza gi war tege muadinun suura bi waaw la da ngeen ulaayika suura bi yaa la parce que kasara bee tax gis ngeen mais xoola ulaayika seetlu leen xam nga xam nga am na am na nabru seen wuleen ko am la ko waral daa xëcc moo tax mais bu xëccutoon kenn du ko am nabra xoola chat moo tax nga di ko bind nii chat ahu chat ahu amul suura moo tax nii nga koy bindee parce que masque nig bii rek ngay bàyyi xel da ngeen masque bi ngay bàyyi xel foo fekk hamza boo xam ne sukkoon moo ko ginnaaw bu rufa ci ka maanaam Euh, nabra bi wala hamza bi maanaam da koy teg àla satra waaw du am bañ déedéet du am suura lañu jubloo du am bañ loo jubloo ah ah déedéet ah laf idati ah laf idati ah laf idati non non nii nga koy bindee laf ñoo koy bindee ma na nii ngeen koy bindee du ngeen ko bindee nii ah day am fan lii day am bañ ah ñun kaamil ñun kaamil ay ma xool rek waaye dañ ko xool alxuraan moom moomuñ ko nabra ma bu mooy Hamza Hamza mooy Hamza akbar mhm. alal du am bañ de amul bañ de du am bañ ban ah ah, ah. ah. ragal bi du loolu de njuumte la ah ah ah ah suñu amee doon de référence de waaw eh elme almuhim mooy xam-xam bi moom jàng ngeen ko dégg ngeen ragal bi xam ngeen ko léegi nag xoola li ñuy woowee taxqiiq taxqiiq mooy dem ci téere defar ko xool ko lu ne nga della ko fa mu dëkk loolu la ñu woy taqiq loolu nag bu ngeen jàngee ba dangeen koy def téere yi ci réew mi da ngeen bu baax alxuraanu karim xam-xam la kenn moomu ko da ngeen téere buñ sañu tax amut da ngeen ko baax alxuraanu karim la suñ borom moo ko moom xam-xam bi moo ko wàññi wàcce ngir ñu sàmm ko ku sañ nga dem ci benn téere sàng na dama koy taqiq da ngeen ko bu baax mooy loolu da mm-hmm. léegi wakkul kullu ma wajadtahu min nabri min gayri suuratin fada fi satri foo fekk am sa boo xamante ni amul suura na ko teg àll satri na na tege ci kaw loolu lu mel ne xoola mi mil u lardi gisoo ko ni nii ngeen koy def xam nga lu ko waral masse canique bii moo tax kii du sensé régal bi du dañ waaye nag bu fekkee dafa nekk lu xëcc loolu moom day xam nga xam nga bu xëccee xam nga muy muy woo maanaam jëm moom ci boppam ak maskaam lu mu doon moom Hamza bi loola ca lay tege bu xëccee ak maskaam la mu doon loola ca lay tege moo tax ngeen bind ulaayika da ngay bind abnaahum gisoo ko nii régal bu ngeen ko jàppee da ngeen noppalu ci yu bari gisoo ko nii abnaahum day doo wala du dog day dog yéen a jàng de dégg ngeen dégg ngeen ko bu baax gisoo ko nii comme daa xëcc rek ma maska ma maskaam lay xool lu doon ca lay tege lii mu teg lii la ñuy woyee suura lii mu teg lii la ñuy woyee suura dégg nabra bi mooy lii ah abra mooy am sa mooy nabra ñoo bokk benn tur dégg ah, waaw am waaw loo am daa am ñu wax loolu mais ñu ne nag benn tur la ñu ne nag ah nabra daal mooy bu ñu ko tasilee mooy nabra bu ñu ko jàng ñu di ko woy Hamza mais moom wenn tur la woo xamante ne bii ñoo bokk jenn jëmm comme man nga ne borom saam nga ne Maamoor Jaara man mii dong la dégg nga <laughs> dégg nga wa kullama wajadtuhu min nabri foo fekk nabr wala foo fekk Hamza min ghayri suura ba amut suura ah dans ala satr tekku ci ala satr loolu leer na bu baax chaf aho nangam yaakaar naa ne yu mu indi fi baadul xadr des na ah daal ah ah mooy kii ki amul sóora yii yëpp amuñ sóora parce que xoola ngeen jégal ma eh xoola xoola xoola xoola defal lànk rek xoola xoola fii xoola taxaw leen rek ëpp na de sama bëñ da ngeen kii dafa ëpp da ngeen bi ma xool الصورة الألف الصورة الياء الصورة الواو دنجا saala suura bi nabra bi tege wala suura bi xam see tege alif la parce que masquette bi moo tax nab bi suura bi yaa la parce que kasara bi moo tax xaaw la suura bi waaw la parce que masque lonk bi moo tax lii la ñuy suura li mu tegee mooy suura dégg nga ñu ne nag saa yoo xam ne yaa ngi bind nabra wala yaa ngi bind xamsa taamul suura xamsa bi na tege ci satru bi waaw muy muy muy def ko nii rek gisoo ko nii gisoo ko nii

jàngal sëñ bi waaw eh, mayel kii waaw ah, waaw baax jàngal yow ah, waaw bi chaklin aywa bisimilah aywa bisimilah mhm. mhm. faw xaxu olif olif olif min al alif voilà baax na foofu wa ma bi shaklin fawqahu ma yuftahu maa saakinin wa ma bi kathirin yudahu min taatu min taxtu wal madmuumu fawqahu alif lakinahu bi wasatin min al alif euh, foofu ñi ngi doon ñi ngi doon wax maanaam ci hamsa boo xam ne amul suura amul suura ca lañ doon wax mu ne euh, wa kullu ma wajadtahu min nabri min xayri suuratin fada fi satri mu ne nag waaye nag wama bi shaklin fawqahu maa yaftahu maa saakinin dégg ngeen wama bi kan yudahu min taxtu wal madmuumu fawqahu ulif laakin laakin nahu bi wasatin min al alif loolu mooy lan alhamza alladi lahu suura ci lay wax fan la nabra bi di tegee moom lay wax hamza bu am suura ah hamza bu am suura fan la fan la suur kii bi nabra bi di tege bëñ bi kon boog lii ndiwee bëñ bi ah bi fan lay tege loolu lay jàngale mu ne wama bi shaklin fawqahu maa yuftahu maa saakinin misaal benn mu ñëw maftu wala mu nekk maanaam saakin da ngeen mu nekk saakin foo fekk am sa boo xam ne maftux la wala mu nekk saakin nee na bañ bi ci kaw lay tege wamaa la nga xam ne bi chaklin chaklu day firi suura di firi maska buñ ne chaklu euh, dana ci jublu xaraka jublu ci aussi suura mais chaklu fii nii suura la jubloo wamaa la nga xam ne bi shaklin daa ànd maanaam ak suura loolee mu ne maa day nekk loo xam ne yuf taxu benn ñu nekk luñ maas maas kayet bu mel ne nga ne euh, ndax am nañu alxuraan misaal ci alxuraan Hamza maftuux hmm? afa amina ahlul qura afa amina ahlul qura afa amina min mu awul yoon moom mu ko bind bëggee noppal na aw yoon rek afa amina ahlul xuraa maftu ak ban eh, ak bari na trop mel ne badaa amara amara allah taamudu lu mel ni ngeen ne badaa dégg ngeen amina amara badaa wala mu nekk sax maanaam saakin lu mel ne iqra dégg lu mel ne même maftu ba suna ba suna euh, fi'atun dangeen wama la nga xam ne bi shaklin dafa am suura loole ma day nekk loo xam ne yuf taw dañ koy ma maskayat lu mel ne afa amina amara badaa fi a dégg ngeen maasakinin wala sax mu nekk lu ànd ak maanaam nekk lu sukkoon lu ñu ma maskani lu mel ni iqra iqra wala basuna waaw nga ne kii lii loo ci bëgg a wax mu ne nabra ba fawqahu ca kaw lay tege loolu leer na waa bi faw xaw moom mooy xabaru maa bi yéen ñi jàng naxu dégg ngeen waa bi shaklin fawqahu maa yaftahu maa saakinin loolu benn àtte la foo fekk maanaam hamza maftuux wala hamza maanaam maanaam saakin nee na ca kaw nabra bi ca kaw lay tege du tege ci suuf dégg ngeen bu baax looloo tax ñuy bind fi atun kii bi kii bi di féete kaw fi atun tuxaatilu hmm? mu ne nag waayun bi kasin yu baxu min taatu su fekkee ne bi maanaam nabra bi ma maanaam baal bi dañ ko maas ci suuf nee nabra bi hamza bi ci suuf lay nekk voilà wala mu nekk maanaam kasra dégg ngeen ci at dégg ñaari ñoo bokk lu mel ni masalan ulaayika loo ko nii hmm? ulaayika ak ban af afida hmm? laf ida ni ngeen ko bind du am solo de yastaziu voilà yow yastaziu yastaziu loolu danañ ci ñëw masalan innahu noonu ulaayika kasar lañ soxla lii lañ soxla ah imriin mais day day am suura ba moo tax waaw waaw day am suura inna li kulli imri'in da ngeen yawma idin ma idin wala kon jërta bari innahu saa yu saa saa yu kasraa daal saa yu wax i nee na nabra bi maanaam ci suuf ci ci roon ci suura bi lay nekk day féete suura bi suuf loolu mooy ko àtte bi saa yu wax i nabra bi maanaam ci suuf lay nekk da wamaa li nga xam ne bi kasin dañ koy maas ci suuf yu doxo dañ koy leeral maanaam min taxtu maanaam day nekk ci ron ci ron ci ron gi waaye nag wal mab moomu lu ñu ma maas kalonk ah buñ ko dee suñ ko dee maa maas kalonk ah suñ ko dee maa maas kalonk ulifa miinif na ko faw xaw ca kaw lay nekk dégg suñ ko dee maa maas kalonk maanaam suura bi ca kaw lay nekk waaye na laakin na bi wasatin min al alif am na ko doon laaj fii léegi mel ne nga ne yaklawkum mabmuum yaklawkum yaklawkum wala ne yunshi'u moom lii moo ko yitteel da lii moo ko itteel parce que maas lañ ko maas da waaw di wamaa li nga xam ne <coughs> bi kasir dañ ko dañ koy maas ci suuf yu boo def na ko leerale min mu nekk ci ron gi da bu baax hmm. nabara bi gi lay féete waaye wal ma moom buñ ko nee buñ ko dee maas maas lu mel ne yekkalewukum wala yun si u u mu ne ulifa mii def na ko def faw xoo na féete kaw na nekk ca kaw da waaye nag loolu mooy lan loolu mooy sudee waaw wala mu wala wala sudee yaa waaye nag ah lakinnahu bi wasatin min al alif su fekkente ne bi maanaam maanaam maska ga alif la nabra bi maanaam muy wala hamza bi ci digg bi lay nekk mu dégg naa ngeen di ci wax lakinnahu waaye hamza ba bi wasatin ci digg ga lay nekk min al alif su fekkente ne bi alif la lu mel ne ulaayika misaal biñ jël lu mel ne lu mel ne ulaayika daal yëpp daje na ci voilà ulul albaab wala ulul albaab léegi nag nabra bi wax ji bari na ci ndax mi ne wasat rek la wax fan lay nekk dañ ne dafa war a nekk fii ci kanamam fii la nabara bi war a nekk ndax da koy laal wala du ko laal dañ ne da koo war a laal dégg ko bu baax ci digg bi lay nekk te da koo war a laal xaasatan bu dee alif moom moo ko moom lakinnahu waaye nabra bi bi wasatan ci digg baat bi lay nekk min alif su fekkee ne bi am si maanaam alif la dégg am na xilaaf ñu ne ah parce que ñu ne waxuñ ko rek bàyyi dañ ne xaraka boo gisee ñu ciy wax xaraka d'accord nañ ne dëkkul ci baat bi day nekk a ëllëg mu nekk i ëllëg mu nekk u mais nabra nabra dafa dëkk ci baat bi toujours dafay nekk loolu moo tax ñu nekkoon kon daf ko war a laal foofu lañ ko teg mais waxuñ ko noonu rek bàyyi da ngeen ñi ne nabra bi day laal kii laal ne fi ñu ko teg mooy dañ ne am sa bi dafa dëkk ci baat bi ñu ne nag bu dee xaraka du la du laal du du ko laal ëllëg tey mën na nekk da tey ëllëg mu nekk di ëllëg mu nekk du kon dëkku fa mais nabara toujours moom daf daf fi dëkk ulaayka lu mën di xew kii daf fi dëkk ñu ne kon daf ko war a laal parce que ñu parce que maanaam benn lañ ñoom foofu bi ñu koy taw ji bi ñu koy layal foofu lañ ko teg voilà voilà waadi hada kon wama bi shaklin wama bi shaklin fawqahu maa yuftaxu maa saakinin wa bi kasin baxu min taxtu wal madmuumu fawqahu alif lakinnahu bi wasatin min alif da am na ko doon laaj nag li ñuy wax lépp nag mooy daf laa waxoon ne fa dabtu ma xuqiqa bi safraai naqtun booba léegi ñu ngi wax maanaam tomb lañ doon wax ah mu ne ab tomb ab tomb lay nekk bu mboq bu dee am sa bu ñuy jàng bu dee bu ñuy tafsil mu nekk am sa bu xonq waaye nag am na beneen xeet bu muy wax boo xamante ne bi du nuqta moom lay bëgg a wax nii bismillah fadal mhm. kan bi voilà kii euh, day na ci kaw wala day ci suuf yéen fi ngeen koy teg loolu loolu lañ ci waxoon fii ngeen koy teg waaw parce que euh, loolu day boo ko te bi ñuy jàng boo ko te bi de wama bi kasin yudaw min taxtu mais baax na nii la mais nii la sax mais mais nii la nii la di dane waa bi kasrin xam nga lii xam nga lii mooy suura bi mais nii la man maa ci juum la mais li mu wax kay lii la sax ah, oma bi kasirin ah. bu dee i la ñuy jàng xam nga nabara fu muy dëkk fu mu dëkk lañ lay wax ah. mu ne yow boo dañ koy leeral min taatu ci ron baat bi lay nekk kii nab kii sóora baa ngi nii fii la dëkk man maa si juum de maa si juum dégg ngeen maa xëy ma loolu mooy euh, bu fekkee benn bi maanaam xam sa bi dafa nekk nuqta waaye li muy wax fii nag day wax leneen loo xam ne dégg naa ko ko doon laaj fii yaakaar naa démb man yàqara la bayaat waaw ah, ah am na ñoo xam ne dañ commencé ba léegi mosuñoo jàng dañuy toog rek ayoo ah, jàng yaa ah, kay jàng kay waaw saa waay saa waay jàngal waaw daal ma borom saam yow yow da di jàng sax yow moom sama tur dafa neex ayoo jàngal ma dégg waaw su moom taxin xaytu taxarrat xaytu taxarrat la di xanaa xaytu taxarrat waasil continue wa xur bi maxrajayhima خصت آه خطط آه خطط voilà ok جميل léegi nag wanu xaati dégg léegi nag dafa am beneen forme hamza bu ñuy jàng nabra boo xamante ne bii nekkul nuqta loolu lay wax nii yaakaar naa ne loolu mooy almaamul bi xaaliyan ah. waaw. hamza boobu suura. waaw. daf koy laal loolu mooy li ñu doon wax nii léegi daf koy laal. yun siw waaw. waaw. ah mais ka déedéet dañ ne la xoola xam nga lu ko waral xam nga lu ko waral déedéet xoola kasra gi ko féet ginnaaw moo tax. kasar gi ko féete ginnaaw moom moo tax yun si yun si moom moom moo tax gis nga bi nabbi ibadiya noo koy bindee loolu moo ko waral xam ko waral kasara gi moo tax kasara gi moo tax dégg loolu noonu la lépp lu li kuy lu sa xel rek daa mu mu leer ci yow loolu moo jaadu wala da léegi nag dañoo xool euh, aywa léegi dañoo xool euh, ñu ne nabra am na beneen beneen chaklu chaklu boo xamante ne bi dañuy mas mais maas gi ñuy maase fii euh, maanaam euh, nabra bi nekkul nekkul nuqta te loolu ba léegi dañ koy jàng waaye waaye lan lay doon loolu la ñuy wax nii léegi nag bi loolu amee dañoo xool ci araf ban bu ngeen xoolee masque yi dañ naan lee sàdda ñu ko jële fee masque yi ñu ko jële ci xaa di yéen a ngi seen lu baax les daal lu ne am na fu ñu koy teg bi itam Hamza dañ ne fan lañ koy jële ñu ne dañ xool maanaam araf yépp ñu ne bi ñu xoolee araf yi dañ gis ne lii di lii di Hamza ah maanaam mboolem xuruf abajade yi ayin la ci bokkal lim ko bokkal gis na ne ñoo bokk maxraj ci xuruf xalq yi ci la bokk ñu ne ndax am na meneen moroomam mu ko bokkal ñu naa ah, déedéet ñu ne kon benn ngi noonu kon nañ ko tànn ngir loolu saaniyan ñu ne gis nañu itam maanaam ñoom seeni maxraj dafa jege a ak a sorewut ñu ne kon nañ ko tànn ngir loolu ñetteel bi ñu ne itam ci ci ci sifaatul xuruuf yi am na luñ bokkulee loolu mooy tafashi muy muy boo ko jàngee du toog danga naan a ah, day dem ha ah, day dem donte sax dañ ne ha ah, moo gën a moo gën a ëpp tafashi ndax dafa boole diggante raxawa wa shidda wa bayna riqwin wa shadidi lin omar ay ci la bokk ay naan tum waxoon naa ne leen ci démb man xafizal mutuun xaazal funuun loolu moom naa leen ko bindal ab xam-xam nga man xafisa man xafisal mutuun man xafisal mutuun xaasal funuun dégg ngeen mokkal dafa baax voilà dégg léegi ñetteel bi ñu xool ñu ne liñ seetlu seetlu itam dañoo jege sifa donte yemle wuñ ko nag mais dañ koo jege da ngeen bu baax ñu nekkoon kon bi ñu xoolee araf yëpp lim bokk kii bokk ko kenn ñu nekkoon nañ ko tànn génn ci génn nañ ko tànn génn ci génn ci Hamza léegi nag nañ koy tànnee da ngay xool gisoo nii dangay xool foo ko teg foo ko teg su jubee nga xam ne maanaam mbooleem mbooleem fi mu dëkk fi mu dëkk fu ci nekk soo fa tegee ayin da nga koy mën a jàng. moo a ma ne su moom taxin na na na nga natt muy na nga jéem a xam na nga ixtibaar na nga jéem a xam mawdeexu fan la ay fan la xam sa war a dëkk boo ko ixtibaar loo fay teg ayin bil ayin ko foofee doon a may bu ci bu ci am leen bu joxe ay misaal lu mel ne amanu boo ne amanu day jekk moo tax ma ka amanu comme amanu fi amanu wa yi lu mel ne fi suu i nga ne sooy musi nga ne musiya yéen a ngi koy seetlu ñu ne yooyu dañ gis ne xam su mu dëkkee rek boo fa tegee ayin day jub ñu ne kon nañ jël ayin génn ci génn ci maanaam Hamza boo xoolee xoola Hamza nii lañ koy bindee gisoo ko nii démb dégg naa koy laaj fii li mel ne ab arbaa li moom amul te léeg-léeg nga gis ko nag Hamza boo xam ne nii lay mel. ah ah déedéet kay eh non non eh eh eh nii ngeen di bind am sax yéen itam teg ko ci nii ah am sax nii lañ koy bind nag ah effectivement ah? ah waaw xoola li am solo mooy pardon xoola man li ma bëgg mooy xoola xoola xoola xoola voilà voilà bu fekkee ko waaj yaatuloon nga dagg lii dégg nga mais anyway voilà léegi nag xoola gis ngeen léegi da ngeen di jàng da ngeen am xam-xam xoola ah, xoola man li nga xam xam jëfe lay jariñ mais boo xamee jëfe ko kay loolu la suñu borom wax yaa mi asfaaran ah loolu dara jëlu ko dara jëlu ko kat ah foofu daal laa yem man dégg ngeen dégg ah, ah effectivement effectivement li am solo daal mooy ku jàng ba pare la am solo mooy nga di ko jëfee dégg ngeen kon kon ngeen xam ne hmm? ah voilà voilà xoola gisoo ko nii nii ngay def ak ayin la gisoo ko nii ak ayin la aywa ñu continuer xool leen seen seen kaamil ba xam kaamil mujj yëpp nii la mel. waaw mooy ni def kay voilà gisoo ko nii même moo ci nekk waa moo ci nekk mhm. kaamil yi mujj yëpp moo ci nekk kon euh, euh, nabra bi bu nekkul tomb na nekk ayin dégg ngeen ba léegi nag yaay seet lan nga ciy tànn. te bu dee tomb moom il faut da nga jël couleur day day day sonle yaakaar naa ne moom kaamil mujj yëpp bind euh, nii lañ ko bindee ah ah waaw oh, dégg ngeen mooy nag li ma doon wax maanaam moom la moom moom la leeral fii waxu satil aynu waxu satil aynu li ma baynahuma de shiddatin waxoon bi maxrajihima dañ koo jagleel ayn ne nañ ko jox mu taw taxawaayu ñu nañ ci génne hamza lu ko waral li maa bay numa li ngir liñ séq ñoom ñaar li am seen diggante min shidda ci ci shidda nga xam ne boo ko waxee day dem du toog ah ah muy benn ak lan boo xool bi maxaraji yi ma aussi dañoo ba dañoo jege fu ñuy génne ah ah yëpp ci xalqa lay lay jóge looloo tax araf yëpp na comme ayin rek la ko ci bokk looloo tax ñu tànn ko moom ne nañ ko ko jox génne ko ci mooy nag lay li sa lii tax xuttat binde bindee nañ nabra bi wala bind nañ hamza anit sixaat jëli ko ca gaa yu borom xam yu mag ya ah sixaat mooy jamu siqa ay nan mu nekk ayin minal kutaab bi bind kat yëpp ci d'accord wa nuxaati ak ñuy jàngale xam-xamu naw ñëpp ñoo ci d'accord dégg ngeen kon naktafi bi hadal xadr insha allahu taala salaamaaleykum i tafir nee na su ma su ma war a dugg si xam-xam buy jàngale hamza nee na moom bu ma amee bunt bu may jaar dama fay jaar jàll ndax xam naa bunt bu naqaree jàngale la noonu la jafee si dabtu waaye noonu la jafee itam ci kada dégg ngeen siñ sam li mu fi wax lépp ah. kon yombul waaye comme taxawoon na si wa u wa u a una bi ukuma ah. moo tax ñu andi si wenn bayit bu ibnul xaadi mu tënk si loo xam boo ko mokkalee di ma mën a def dabtu kalima a una bi ukum di nga xam boo demee ba di bind ban nga siy jël boo xoolee masaaxif yi itam boo ko ci tegee di nga mën a natt kii ban ligne la jël loo tax mu ni wa a unabbi u bi waawin xadru sim xam nga sikki sàgg amul ni saxaaba yi bi ñu koy bind dañoo bindoon ak waaw rek yaa ngi dégg waaye nag wa xulfu ahli dabti fi shakli ulim nee na ñiy jëfandikoo dabt nag bi ñu agsee si war koo maas maam si la wuute gi amee waaye waaw gi moom sikki sàkk amul ni bindoon nañ ko ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim mu tuddal la imaam abi daawud moom taariya la jël taariya mooy moom dafa jàpp ni taariyatul waaw ani daara wa naqs maa waaw gi du am du am ab kuppandal waaye ab tomb tam du nekk ci kanamam moom daal ak waaw rek lay bind daal def nabbi ukum moom taariya la jël loo tax mun la fa arrihi libni najaahin musjala boobu waade ha ah? kooku moom atte boobu la jëfandikoo ci a unabbiukum waaye nag wa naqtu li tujibi fawqahu jala nee na imaam tujibi rahimahullah moom daa dem ba si kaw waaw ga mu def fa ab tomb yaakaar naa booy xool si masaahif yi ñu bind si mi am na ci waaw ga dañ koy tomb rek bàyyi ah kan si imaam bi nga bàyyi bàyyi ni muqri la woon ci Andalus moom mi ngi jàng ci Abu Omar Addaani kon kon kilifa la loo tax mu ne war naqtu li Tujibi fawqahu jala dégg nga mun la nag wa daaratan min fawqu maanaam daara ci kaw waaw ga qaala daaniya wa nuqtatun amaamam te mooy bi ngeen xam jël daa daara bi muy waaw gi nga def si benn kuppunal ba pare avant nga àgg si noonu nga defaat foofu benn tomb ah. mooy wa nuqtatun amaamahu bayaani kon loolu mooy dabtu kalima u nabiku nga xam ñetti anam yëpp am na si mu ngi ne jaalu daara alal waaw wa jaalu nuqta amaamal waa boobu mooy al awal waju saani taariyatul waaw daara wa naqt comme nii ah. waju saalis mooy al ittijiza bi naqt da ngay doyloo ab tomb rek ani daara ah. te du am daara daara nag boo koy dégg dañ naan la mooy wa kullu zaidin alayhi daara lépp luñ dolli ci alxuraan boo demee danga nga fay fekk lu kuppundal sa kawam loolu kenn du ko jàngaar lu mel ni ki amanu am nañu naan dañ ko sukkoon masque masque ak amanu gi nag loolu du masque kooku daara la xam nga suñu saam jàngaloon na leen ni la sakkin bi daara li li li tooy aywa kon kon daara mooy loolu moo tax ñu tënkaloo ko fi ne la wa kullu zaidin moo xam ulaika waa goo xam ne zaid la day am benn daara si kaw waaye kenn du jàng u u aw ulaika ulaika rek ngay jàng waaye dafay nekk yaa ngi dégg benn rek lañ si bàyyi mooy ila ana ilaa ana walakina walakina gase kax bi ak ila ana yooyu moom day am daara no hafan day am alif waaye saayir la waaye du am daara mooy wala kinna gasa kax ak ilaa ana ngeen di jànga waaw de kooku moom mooy mënoon lañ koy tënk ah. bu dee benn mbokk laaj na ko lu mel ni ki ay himmatan mu ne est-ce que léegi xamse gii nga xam ne dañ koo tasiil parce que dañoo xam ne bu ñu fataa ak xamsa kasra te bokkuñu benn ba maam heure bu fataa ñëwee am ci ñu kasara ko dañ koy tas tasiil la ah. su boobaa la gën a siiw mooy tomb bi yaa gi da koy séq maam tomb bi day nekk ci digg bi ñaari yaay séq ko waaye boo xoolee moolu tunis bi yaakaar naa ñu bari xam nañ ko mooy bi ñuy riwaaye ci maarix nii kooku moom day bii lay def ah. day jël ñaari tomb ñu dem ci kaw mu jël benn tomb borom bi mu féete ko suuf mel ni da koy yanoo ah. waaw mi ngoog waaw pour ngeen xam ni yooyu yëpp am na waaye nag su fekkee su fekkee lu mel ni abuna ihim la nga xam ni hamse gi moom dañ koo kasara waaye dafa ñëw ginnaaw sukkuun moo xam gu dund la moo xam gu dee la su boobaa moom ñaari yaay yi kenn du ko xongal waaye nag moom hamse gi daf ko yanu loolu moom benn version moom moo si am lu mel ni abuna ihim ka abuna ihim bu fekkee dafa kasara nag laaw dégg nga mooy fekkee dañ ko kasar mu ñëw ginnaaw sukun moom xamse gi moom mooy yanu loolu ah? Ah? mbindum olof ah mbindum olof olof dana ko def waaw ah. léegi léegi bu ñëwee ci fii pour dëkkante waxtu parce que dafa mel li ñu wax am jeex na te moo li moo desoon ci wàllu maa yi ñi natte demoon nañ ci ayib yi mbind démb jaar nañ ci muxaalafat rasmil osmani yi ak dopt ah. jeexaloon nañ ko dañuy com dañuy complété li desoon ci dopt après ñëw ci maanaam mokkal kii bind bokk ci jongante bi lan la ñuy nattoo ak mokkalam wér na ba tax mu mën a am darajaat yi ñu soxla ci ku mokkal bu dee ci foofu dañoo àggoon ci almuxaalafa fi wadi alaamatil mudud aw xaltiha maanaam fi ñu war a teg madda gi fan la war a doon loolu jàngale woon nañ ko ah. waxoon na ni la benn day nekk ci digg alif gi wala mu tàmbulee fii jëm nii waaye sañoo ko def ci ganeen anam jaxase gi mooy nga def ko foo xam ni yoyowu ko masalan lu mel ni ki ci mbind yi léeg-léeg nga gis ka annama yusaquuna xam nga kooku mi ngi bàyyi ko ci saq ak yi firi màng mais léeg-léeg aji bind joo xam daf koy jaawale ak wa man yusaqi oh, xam nga kooku boo ko màdda xam nga problème lu mel ne in ana illa xamoo kii day nuru ni dafa xëcc xam si ñëw ginnaaw dafa war a am màdd kon kooku boo xamul xaay de moom itam mën nga ko fay teg te bu dafay nekk ay daan moo tax alaamatul mu duut nga xàmmee ko bu baax xam fan lañ ko war a teg te bañ koo jaxase ak itam almuxaalafa fi taxdidi nihayat al ayat bil xuruf aw xaltiha maam aaya yi est-ce nii la suñu saam yaa ma yaa ma jël sama gaawaay gi yëpp bu ma kenn wax dara nag suñu saam moo suñu saam moo yeex nag moo jël wàllam jël sama wàll ah. <laughs> léegi dañuy bañ nit ki masalan bu ne aay lu mel ni bopp saar ah moom la lu mel ni aw saar nga war a bind sab'un wa ishruna nga bañ koo def wala nga def ko waaye da nga koo jaawale xamsu ayat nga ne arba'u ayat wala xamsu nangam nga daal di daal jaxase nga ko wala bañ nga koo def kooku am na ay daan yu xaw a diis yu si tege yoo xam ne aajan di xaw a góorgóorlu tuuti ak aadamu kitaabati makkiya aw madaniya maanaam fu ñu war def makkiya nga def madaniya wala fu ñu war a def madaniya nga def makiya foofu nag sax xel man naa dem si yi xam dañ see wuute yaakaar naa ñàkkul ni xam ngeen ko mat na fukki barab ak ñaar ci ci ci saari yoo xam ni téere yi dañ si wuute léeg nga dem si ab mu def makiya léeg nga def si am téere mu def madaniya te yow itam nga bàyyi xel ni dañuy wax ni lépp lu wàcc avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay di dem madinatu munawwara moo xam aaya bi muy wàcc dafa ko fekk makka wala dañu ko fa fekkul moom dañ koy adressé si makka lépp lu ñëw ginnaaw gàddaay gi itam fu mu mën a fekk alayhi salaatu salaam aaya boobu dañ koy adressé madina loolu ci yenn gis ni pour mu gën a yomb waaye yi ñu wute mat na fukk ak ñaar fukk ak ñaar yooyu mën nga see jàpp lu mel ni kii suratul qadr wala lam yakun wala xam nga doon koy gis lu mel ni ixlaas ak falaqi ak naas yooyu itam dañuy gis ni dañ siy wuute léeg-léeg gis ay téere ñi def makkiya ñi def madaniya waxoon nañ leen ni leen ñi liggéey si wàll gi nangu nañ lépp loo xam ne école saxal na ko ñaar duñ ko mu axasa ki nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy bokk si concours bi waaye day fekk nag mu bokk ci yi nga xam ne moom ak wuute def see am waaye li ñëpp xam ne moom madaniya la man ñu ba ñëwee ci bàqara nga def ko leneen ñëpp dañuy xam ne bàkkaar moom la fa nekk xam nañ ko dañuy xam ne loolu moom njuumte la waaye yi ñu wuute moom des na ko jégale yaakaar naa bokk na si yooyu fatiha léeg-léeg gis ayo c'est-à-dire lu si lu ci liñ wax rek maam lépp loo xam ak wuute la nga xam ne sax na si ay téere ñaare danañ danañ bàyyi xel ni ki ko def dafa dafa wu dafa dafa sukkandiku ci lale maam defu ko ci ak ñàkk xam waaye defu ko itam ci ak tajaaxul dañuy jàpp ni am na fu mu sukkandiku pour def loolu kon mat na fukki saar euh, ak ñaar yaakaar naa saf fi si la bokk taxaabun den ko si dégg arrahman suratu yooyu yëpp ay kii la même fatiha waaw yooyu moom waaw mi nga yëpp moom la waaye nga xam loolu en tout cas ni ay wuute daal am na si yi nga xam ne ay wuute am na si nag ma des na ko jégale waaw ba day noonu rek lépp loo xam daal gis nga ni day am fee du am fii yaa ngi foofa rek dégg léegi nga ñëw ci mokkal alxuraan li ñuy natte ni bind ji ak mokkalam wér na ak doon sax duñ ko weddi waaye daa am lu ñuy sukkandiku rek ni xañ na bu ko xamul aajana daa gëj a nafar léeg nga di di xoolal ma ay sàngam fu mu nekk ndax damaa gëj nafar ndax wa man tara takraar la budda an yan sa kooku moom amul saafara ji ndax moom gaa xam nañ ko gaa yi balaa xam nañu génne wuñ kenn wa man taraka takraar la budda an kon li ñuy nattee ni nit ki alquraanam rafet na ba tax euh, mu mën a am wàccuwaay bu rëy ci concours bi yii si la bokk ndax nit ki bu fekkee dafa bind ñu xool gis ni jël na ab baat isqaatu kalima aw ziyaada wala nga jël ab baat dugal ko foo xam dalay wóor nii fii baat amu fa loolu moom jërut misaal li may wax gaa yi xam ngeen ko yéen a ngi jàngale yéen a ngi téele da ngaa jël baat bi baat bi nga fi dugal bokk fi loolu yaa gis na ko dégg kon isqaatu kalima aw ziyaada ak isqaatu aaya aw ziyaadatuha bàyyi lu toll ni ab aaya wala nga yokk lu toll ni ab aaya yooyu moom yu yu xaw a diis la yu diis lool sax nag man ngaa rafet mbind lool wawle ko lool waaye bu la gaaree daanaka da ngay daal di xam ne moom day day xaw de waar moo tax lu mat a bàyyi xel la mooy isqaatu aaya aw ziyaadatuha isqaatu xarf aw ziyaadatuha itam xaraf nga dindi ko wala nga def ko masalan indi naa lu mel ne awalam yaraw ah xamul li xaraf la am na barab yoo xam ne alam yaraw la wax am na foo xam ne awalam yaraw la wax léegi nag foofa dem dugal fa leen dindi nga bu fekkee fu mu amul la boo ko fa defee dugal nga baraf bu dee fu mu am la boo ko fa génnee génne nga baraf awalam yaraw xam nga loolu gars yi dañ koy tënk si boole yi awalam yaraw ñaata bañ waaw lala lala nana ya lala nana lana am la araf naxal naml yaasina mooy lala nana ya kon ñu bàyyi ko xel bari nag si alxam waaye dama laa jox benn misaal boobu ah. awalam yaraw day wax ñoom alam yaraw ah. awalam yaraw ila tayri fawqahum saaffaat kooku moom da koy am ah ndax bokkul ci bokkul ci tënk bi ah ak ban lu mel ni ki taxyiru kalima soppi baat lu mel ni alimun nga ne xalim kooku da soppi baat parce que changé nga maanaa bi ah la nga dem def ko xaa wala muy xaa nga dem def ko ayin kooku mooy taxyiru kalima boo xoolee maayir yi ñu teg yëpp nag bii moo si gën a sévère parce que kii moo lay may bu ne concours bi tàmbali na nga abbu am mbind dem déposé ñu tànn la nga jàll lan moo ñuy wanal ne da ngaa àbbu kayitu sëñ Fallou njaay lan moo ñuy xamal ne da ngaa àbbu kayitu sëñ Abdou Khoudous loolu xamuñu ko waaye nag fa ngay toogee gaa yi di jël gaa yi di def muraqaba ñu jox la aw kayit foofu lañuy ñuy xam ba xam est-ce que da nga aboon wala est-ce que yaa ngi woon ak xam-xam léeg-léeg gis koo xam li tegtaleen dafa aboon mooy du àggal maanaam su mun sax du ko bind ah. loolu da ngay daje ak moom lu lu bari ay nag ñu ngi encouragé ñëpp na parce que xam ne nit ñi ay jàmbaar lañ bu doon bu fekkoon téeméer yoon ko dañuy jàpp lu mel noonu benn noonu lay arrivé wala sax mën naa bañ a arrivé ah loolu tax mooy aywa lu mel ni aw xarf waaw bu dee soppi xaraf nga lu mel ni faqaala nga ñëw ni waqaala wala waqaala nga ni faqaala kooku dañuy xam ne soppi nga araf ndax ba léegi wax na ngay wax waaye yàqu maanaam bi wala taxyiru shakl mooy danga ngaa soppi gi lu mel ni baadu nga dem def baada ah? wala baada nga def baadu wala anfusahum anfusuhum aw siyaadu shakl wala li ñuy wax dolli masque xam nga minkum ku ne xam na ne wërta am masque boobu ah? boo ko ci doole kon da def siyaada yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ni yu xaw a diis la te itam liñ ci mu aaxase nit ki ay darajaat yu yu bare bari la ndax moom moo daanaka mooy leexam moo lay may nga mën a dugg ci konk bi muy mokkal alxuraanu karim waaye xam nga ne tey bu fekkoon xool rek bind la loolu moom moom moom maara day taale ah léeg-léeg nit ne la ma see bëgg a bokk bind yot la nga ne boo nee ko waaye danañ daje bu ñu bind doo xool doo ko déggaat parce que da nga xam ne moom biram ci xool la tege woon gestu ah. moo tax mokkal gi yi ñu koy xool dafa xaw a jafe boo xoolee yii yëpp moom si ngay xamee ni est-ce que kii mokkal na wala mokkalut beneen bi am na lu ñuy wax taqdim wa taxiir lu waroon a jiitu nga mujjal ko lu waroon a mujj nga jiital ko loolu naa du xaw a jaxase du xaw a nuroo ak ak runge ah, wala jaxase ah xeetu mel lu mel ni nafaam wala dara ah naa ñett rek lañoo ñëw ci alxuraan ah larasa ah? lanrab raad saba la rasa nafan wala dara qul laa amliku li nafsi nafan wala dara mooy lanraaf raad saba yi si ñaare daran wala nafan la kon yii mooy li nga xam dafay tegtale ne nit ki alquraanam rafet na lii dafay tegtale nit ki alquraanam mokk na su boobaa bu sàmmoon teeg moom nag ñaari yii bu ko maîtriser moom li koy baare moom daanaka mën nga ni sens lay doon waaye am na mille sens bu fekkee mbind mi rafet na moom am na mill sens moom pour man a jàll parce que mooy li gën a jafe ci concours bi ndax mooy li xam moo lay may nga mën a dugg si concours bi duggin wér doo xool nag ba xam yenn ni di nga si mën a almuxaalafa fi taxdidi nihaayatil ayat maanaam nihaayatil ayat mën nga see dégg waale ni fu war a aaya fu war a def laaya defoo ko fa ah. loolu ma fom boobu leeraalu ma ko waaye si la bokk fu waroon a aaye laaye woo ko wala fu ñu ko waree bind ay xaraf lu mel ne saboon wa a defoo ko nga dem def nga ba nga jaxase ko nga bañ koo def wala nga jaxase ko ah ayo yii mooy yi nga xam ne mooy maa yir yëpp yaakaar naa ci biir dawra bi yëpp jàll naa wax nañ ay bi mbind ba mu jeex wax nañ dëppoo ak rasmul osmaani yi andi nañ itam xifzul waaw moom laa wax léegi dama ne al ma damaa xalaat ne est-ce du ma ko bindee manqué wul maanaam li ñu ci mën a dégg am mooy tahdiidu nihaayaat fu fu aaya war a am ah, lu mel ne xaribin xam nga ay xaribin mbóore yaa ngi koy dégg ah. foofu tey bu fekkee ne donc aaye woo loolu lool lool lool loolu loolu dañ koy mu aaxasa wala lu mel ne ay sabu on ay surona ah yooyu nga xam ne ay aaya yu ñuy bind pare ay araf la xam na jaaxase gi mooy fu ne saboon wa insuroona nga def xam sun wa insuroona hmm? aywa waaw suura ah xumus yi ak nga xam ne bu nekkee sa cat la bala ngaa bala ngaa wàññi bay àgg foofu kooku kooku dam sa cat la lañ ko teg sa cat la lañ ko teg pour ki ko respecté bu koo amoon ki ko respecté man na laa dimbali daanaka diggante ak wàq foofu ak xeetu mel noonu waxoon nañ sax waaye teg moom nag daa gën a waaw daañu maye lu mat presque ay deux de temps bu jeexee ñu defaat prolongation danañ danañ joxe ñaari waxtu yaakaar naa suma juumul fàtte naa ko mais am na heure bu ñuy maye bu fekkee àggalu dem daañu def prolongation maanaam bu loolu loolu moom sa kayitoo kooku moom mooy mooy mooy mooy élimination d'office waaw am na heure waaw am na heure waaw waaw bu toogee léeg su fekkee ne heure bi ñu jox ñëpp mat na te àggaloo ñu ko seq danañ xoolaat ne nañ leen mayaat nangam yokkal leen bu ñu yokkaatee nag ba loolu ma sàggaloo moom dañuy jàpp ni yow moom dañuy ne moom man naam sax nga mokal seen bind daa yéex waaye daal moom dañuy moom dañuy daal yow moom bëgg bëgg waaw mu gan loolu waaw am na kay waaye waaye bu mais mais boobaa ça dépend ci temps rek parce que tam temps bi am na nu muy demee mën la ko bañ a may. non da ngay fay. andi fay rek de. waxtu yi ngeen ñaata ngeen kii. sam suñu sam waxtu wi ñuy may gaa yi daa ay deux heures de temps lay doon bu ñuy bind. Ah, trois heures ah trois heures bu jeexee après ñu yokkale na. dégguma ah waa gars yi yéen a yow sëñ Fall trois heures de temps rugon wal qalami wa ma yasturuun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 751 42 43 wala 70 736 36 36 comité d'organisation grand prix C3S yaatal mbindum alxuraanul karim mu ngi feddali ak jaayanteem ci sàmm téereb yàlla sunu borom bi di leen ñaanal jàmm ak salaam anta bi ni'mati rabbika bi majnun